in the building. Voilà les Ricanes. Mogues bien arrivé. in the building. Amaner. Grand champion. Ah, l'arrivée de Mogues à Amaner. Abidjouf. Le Sénégal à New City. Sénégal à New mais Lirou waay Lirou Diane Gouy Gui l'international Gouy Gui gane là là avec son sympathisant Gouy Gui Gouy Gui le grand champion ah, ah gars yi kontaan nañu you have really appreciate it ah ça c'est mobile ça dina de ça c'est mobile le grand lañ bañ nangu yàllaa ko def futur président Sénégal moo géet borom laa dégal liiru nga ne lan futur président Sénégal maa ko wax maa tey eh, waaw ah, waaw waaw maa ko wax futur président Sénégal bañ bañ nangu yàllaa ko def li yàlla def ah, ay jaam bi ko ay jaam bi su ko naree bañ ay jaam wax maa tey futur président Sénégal bañ bañ nangu yàlla la waaw in the building. Voilà les Ricanes. Mogues bien arrivé. Mogues in the building. Amaner. Grand champion. Ah, l'arrivée de Mogues avec Amaner. Abdou Diouf le Sénégal à New York City Sénégal à New York City Lirou Diane ton ami ton frère mais Lirou waay Lirou Diane Gouy Gui l'international. Gouy Gui nga ne. waaw waaw avec son sympathisant Gouy Gui. Gouy Gui le grand champion. ah, ah gars yi kontaan nañu yab really appreciate it. ah ça c'est mobile. mobile le grand champion nañ bañ nangu yàllaa ko def futur président Sénégal moo géet borom laa béykat yooyu nga ne futur président Sénégal maa ko wax maa tey eh, waaw ah, waaw waaw maa ko wax futur président Sénégal bañ bañ nangu yàllaa ko ah, su ko jàmm su ko naree bañ ko wax maa tey futur président Sénégal la waaw